spirituelle. la paresse mentale et spirituelle al ghaflatu ani dikri wa tafakkur tayel bi jàpp xel di jàpp ruux waaw ba defee ci sujet boobu ñu jàpp ne suñu waxee al ghaflatu ani zikri wa ani tafakkur yi ba pare ñu wax la paresse mentale et dañuy jàpp ne euh, paresse boobu noonu ñu tudd ci euh, moo xam ne soit que soit mu nekk ci dimension bu mentale bi wala bu spirituelle bi moom mooy jur càggante bi tax nit ki dootul taxawee lu ñuy wax ak zikr te mooy euh, mun nañu wax ne euh, soit bu ñu doon firi zikr mën nañu ko tuddee jàmbi xam bi mu xam lii sunu borom def ci moom mu tudd ko ci loolu beneen bi dellu li koy càggantloo ba du ma jëfandikoo ressources yi nga xam ne yàlla def na ko ci ci ci ci xelam mu mel ni ñaari baat la wante ñaari baat yoo xam ne mën nañu mën nañu euh, valse kenn ku ne ci ci moromam euh, parce que bu mu waxee a tafakkur te euh, yàlla wax waaye tafakkuruna fi xalqi samawati wal ardi rabana ma xalaqta hada batilan ba pare teg ci suba xaanaka dangay gis ne tafakkur ñëw na zikri ñëw na alors ko ci benn chaine ñu def ci à la fois nit ki utiliser na euh, nu ma ko mën tuddee ci juridiction li ko yàlla jox mu xool ci jàngat ci ba xam euh, li ci yàlla dëxëñ mu tudd ko mun nañu wax sax day commencer ci boppam ci environnement ba yegg ci juridiction loolu mun nañu ko comprendre ci bu ñuy expliquer ak zikr wa tafakur te moo nekk ki euh, mun nañu zikr dellu ci wàllu spirituel d'une part wala bokk muy valse lu ëpp wala bokk muy dellu ci lu ëpp ci wàllu spirituel waaye dellu euh, tafakkur di dellu ci lu ëpp ci wàllu mental euh, xañ na xam nga Seydi Hajji Maalik dako tudd ci bi muy wax xisaal yi nga xam ne tuuri su xal xalb mu wane ne am na xisaal yoo xam ne lu mel ni al ghaflatu ani zikri wa euh, yooyu mu tuddi yi nga xam ne mën na tax nit ki sàggan ba xolam boobu noonu nga xam ne mën nañu ko tudd ci ñetti angle soit benn bi dellu ci cadre bu physique boo xam ne soit dañuy jàpp ne euh, bi nga xam ne mooy pompe sang wala ñu dellu beneen bi ci cadre bu mental nga xam ne xulubun euh, yaaqiluuna bihi xulubun laa yaaqiluuna biha ci alquran wala ñu delloo ko ci euh, aspect bu spirituel nga mën ko comprendre ci xol bi nga xam ne buy ruux ñëwul it moom moo nekk ambassadeur am mën nañu jàpp ne sàggante ci ñaar yi mën na tax ba nit ki du jëriñoo Euh, loolu yàlla def ci ci ci ci moom ko defee euh, xam nga zikr boobu noonu buñ koy xool donte mën nañu wax ne ñaar yëpp presque benn la ci processus bi muy jël wante dafa ànd ak lu ñuy wax teewlu teewlu boobu mën nañu wax nit ki du jékki-jékki rek commencé di mën teewlu am na fu muy jaaree ci di évoluer de telle sorte que mën teewlu wante baal ñu salaamaaleykum salaamaaleykum wa rahmatullah ñu nuyu sang bi di ko ziar bu baax waaw Baye dañ la jox thème wax alxaflatu an zikr wax nga ci zikr naka la amee importance tafakkur yooyu yëpp mais Baye ba léegi waxoo lan moo indi sàggante bi lan mooy indi sàggante bi. defe naa wax naa ko nag. ñëwaat ci kon. moom laa tudd ne euh, la paresse di ñu tudd mën na dem que ce soit bu mental bu spirituel ba jur sàggante ci nit ki. lan mooy jur sàggante ci nit bi da nga wax ni fan la jëm mais lan moo jur sàggante bi. dama jàpp ne paresse bi paresse mentale bi mu am wala paresse spirituelle bi moo jur ci moom sàggante. lan moo jur lan moo indi paresse mentale. ok xam nga finalement euh, yi tudd na yu bari yi nga xam ne soit ci lekk gu bari naan bu bari nelaw bu bari yooyu mën na ko jur mais nit tamit sàgganee nafsam ba yaru ko dina tax de telle sorte ko mu koy jéem a woo ci loo xam ne mun na ko jural pares boobu noonu. paresse boobu mën na continuer ba jural ko càggante ci xolam ba dootul jëriñoo li yàlla def ci moom que ce soit ci juridiction wala ci environnement. donc su ma déggee li nga wax mooy lekk gu bari ak naan gu bari mooy indi paresse mentale. non dama tudd rek yenn ci yi nga xam ne mën na indi paresse mentale soit su fekkee dañ ko bëgg a lim après ñuy lim rek après waaw. non xam nga yooyu yëpp da ngay joxe ay nombre yu bari mais am na loo xam ne moom mooy à la base de la paresse li nga xam ne lii moom mooy jur. Euh, pares boobu noonu ñu tudd ba nit ki du mën di xalaat ak du mën di zikkar ñu avancé tuuti da nga tudd sànq euh, euh, ci zikir bi ak tafakkur bi fàttaliku yàlla ak xalaat maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum dafa wax mettre un frein sur la pensée naka lañ koy déggee par rapport ak li nga wax ci xalaat. waaw foofu sax peut-être mën nañ ko gën a comprendre ci beneen aspect wante bu ñu ko delloo ci cadre zikir bi. ñu ne la wala boog tafakkur bi pardon di moins maanaam ci xelaat bi xam nga xelaat yenn saa yi nit topp ko am na ci par exemple mën nañu wax par exemple les philo les philosophes mën nañ di jël benn démarche topp ci topp ci ba doo ngi gis ne sax à la fin da nga naan est-ce que dañuy chercher résultat bu positif d'abord léegi nag kooku bu fekkente ne xelaatam amul njëriñ war na mën a liggéey de telle sorte que frein bu koy tudd dafa am par exemple nit ki lu muy travail ci boppam loo xam ne Euh, mën na ko dimbale ci bu bëggee déborder moom moo koy moom moo koy delloo si léegi dafa am benn wax bu maam Cheikh Ahmed Tidiane si capitaine wax mu wax ni xalaat mbindeefu yàlla la su fekkee xalaat mbindeefu yàlla yow ngay mbindeef lan moo tax yow nga am capacité wu wala yow nga am audace mbindeefu yàlla boobu nga ne ko da ngay taxaw yow. xalaat mbindeefu yàlla ga yow mbindeefu yàlla lan moo tax yow en tant que mbindeef yow nga war am audace xalaat boobu di ñëw nga ne ko taxawal. ñaari mbindeef yi dafa am lu yàlla def ci ñoom lu bokkul xelaat lu mu nekk nekk mbindeefu suñu borom nit yàlla def na ci moom lu ëpp par exemple xelaat boobu outil la boobu pour nit kon déjà supériorité am na su fekkente ne nit ki jëfandikoo na ko parce que même wala xadd karam naa ba ne aadama boobu doonu ba ci fin bi du du du du du du du fin en soi mais à la fin mën nañ ko jàppee comme moyen moyen boobu nag su ko utiliser wul euh, bu yàggee sax dootul gën a waaw yéen juge bi waxagul ngeen di dem <laughs> waaw euh, macha allah bu fekkee baax na loolu moo dellu woon ci manche bu njëkk bi dañuy bàyyi juri bi kem te laayel trois minutes ñu délibéré dafa am nag changement bu ndaw rek bu am ndax euh, temps bi lañuy xalaat ni mën naa bañ a doy moo taxoon ñu à la dernière minute ñu ni au lieu ñu ñu éliminer benn ci manche bi ñaar la ñuy éliminer ndox waaw ñu jàll ci deuxième manche bi après finale bi nekk benn élément ak euh, l'élément la la jauge léegi